Bienvenue sur maanaam loolu day tax góor gu góortale am na ñoo xamante ni wàllu lekk bi yëpp day tax góortale maanaam maj yi ñu togg ak jimbo yi nañ koy bàyyi yooyu day tëleloo góor am na yeneen yoo xamante ni mën na tëleloo góor maanaam lu mel ni góor guy fowee sa bopp ak góor goo xamante da ngay tàmbali comme nga nekk xale ni di fo ci jigéen chaque jour bala ngay màgg am 40 ans bala ngay màgget maanaam sa ngóor a day wàññeeku moo tax foo baaxul defee sa ndaw rek booy dugg sa 40 ans a day wàññeeku lekk geek euh, góor guy foowee boppam ak ñi nga xam dañuy tàmm fo ci jigéen yooyu yëpp day tëleloo góor tey tële dafa xew sax léegi dafa bari am na ñoo xamante dañ leen di takk xale am na ñoo xam dañ lay sëf dañ lay ngay am sa jabar di koy di koy moy moom bu bu meree rek mën na koo mën na yëkkati dara sëf la ko te bu la sëfee rek loolu mën na la jox wàllum tële ak it wàllum nopp même nopp nit mën nga ko jox nopp mu daal di wàññi ngóoram daal di koy tëleloo loolu yi day am waaw ñi nga xam ni daf leen dab ndax nit li mu judduwaale pour nga faj ko ko du yomb ndax loolu day nekk mbindum yàlla suñu borom ndax am na ñoo xam dañuy juddu rek dañuy daal tële kenn mënu leen faj loolu waaye koo xam ne daf la dab boo ñëwee ma faj la te 3 jours laa lay may nga commencé yëg sa bopp incha allah yooyu sëy naa sama jëkkër 5 ans amuñu doom mu takkal ma wujju te bu takkee wujju jëkkër ja fekk te feebar bala ndax góor mën nga yëg lépp lu góor di yëg te fekk ne sa euh, ferñeent yi nga xam ne mooy dogal yàlla dogal ci ni nga am doom day néewu dangay ngay faible faiblesse sexuelle lay tudd maanaam feebar tële boo xamante ne da yëg sa wàllu ngóora danga nga yëg ni góor yàlla dëgg nga te fekk ni sa ferñeent yi mënul am doom léegi loolu bu dee dafay am sa ndox mi mën na am mu mën na am liquide bi joxe dosage bi joxe doom mën na am wallax njaan yi day xaw a néew léegi loolu bu amee dañuy dañ lay jox garab nga naan ko pour wallax njaan yi daal di taxaw sidit yi di taxaw ndax góor itam yenn saa yi say sidit bu amee benn bu lemu rek euh, pour nga am doom day xaw a jafe am na ñoo xam ne 3 jours lañ leen di traité koo xam ne yàggul ak ko xam ne ñu faj la nga wér nga yëgaat sa bopp te jaratul ngay ñëwaat insha allahu rabin ci kàttan suñu borom boo xam ne dama ko bëgg a maye ki nga xamante ne day yëg boppam ba mu yàgg jékki-jékki yëgatul boppam na wut soble mbay mi mu pressé ko ndox mi mu ko mu jël ndox mi daal di koy nal jël ñaari kuddu miel lem mu daal di ko ci def mu koy naan mu xool ñi nga xam ne daf leen dal te sonal leen ndax am na yoo ñoo xam ne ndeysaan dañuy nekk fu sore comme nekk Europe yooyu mën na ko dal mais bu defee loolu incha allah wàllu nguuraam dina am yëg kàttanam waaw soble mbay nga ko pressé ko ba ndox mi génn après nga jël benn morceau daal di koy segg nga wut ñaari kuddu lem nga di koy def chaque jour di koy naan pendant 7 jours loolu daal di lay bàyyi am na boo xam ne petit cola waaw da nga jël petit cola 4 petit jël ak 4 citron petit cola bi nga dagg bu nekk ci biteel bi nga jël ji 5 litres d'eau nga def ci 4 petit yi def ci 4 citron yi nga dagg ko ci digg bi daal di koy def ci biir nga teg ko ci naaj bi chaque jour kaas naan ko 3 fois par jour nga bu dee ndox mi dafa xaw a am tu dafa ndox mi yolom maanaam <laughs> ndax am na ñoo am duñ tële yolom leen seen i ndox day yolom buñ koy naan dalay jox kàttan dalay jox kàttan da ngay dëgër macha allah yooyu dañ ko maye te bokkul ak faj bi macha allah <laughs> kàttan ci kaw lal waa ndax dafa am solo am na ñoo xam ne ngay nekk ak jigéen dem ba mu yàgg yàlla jox la feebaru tële mala sa kàttan waa jigéen ji dala fay ba te ñu benn jigéen ba jëkkëram ndax problème bu kàttan du macha allah ñu ngi lay kontaane faddilu mi buur yàlla ay maqaama yalaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaama yalaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi bur yàlla dolli noo ay maqaama yalaw Bienvenue sur Salam Vision.